Zawiya Maam Maodo bee ca Ndar Zawiya Maam Maodo biir Ndakaar Zawiya Tiwaawan ëmb leer bi mu tasiw ko aw ñoñam yéen a ngi seetaan Al Maktoum TV ku ci dee tàbbi aljana yóbbu say jabar yóbbu say doom sa kii góor yi jóg fokk ndey ak baay si diine fokk ndey ak baay si diine lii la Maodo

Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, بصوت شعبية ما بعدها يمكن سنين قرباني سرين شيخنا هذا رسول الله يوم نزولي متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف الملائك بسطوا اليك اكفهم متفاني يتلقنون صلاتك القدم التي ما بعد للجنس من قربان والحور من بين النوافذ في الحمى متفرجة في ككل الولدان سصحبني وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين بي وفي الإعلان ne sama turandoo maamam solal ko mbubb jël faatixatul kitaab nuuraani mu kaalaat wa bi saafi bi wasfi mbaare nga kaaloo ummul kitaabi bi xatiyar nuuraani ya sayidi ya sayidi ya sayidi mag bi mitlika mut atal ajfaani يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفؤاد العاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي ne yàlla na yàlla faye ndawi jamono yu mel ni itfa ci dundal sa tariqa ثم الصلاة على النبي وآله من ربي في ربي الحناني أقال أحمد للتجاني مرشدا فإليك يا محمد نادى اللهم صل على سيدنا محمد فكلمة أولى وقديمة سبب سحق الحق والهدي يوسف المستقيم على تعليم حق قدير للدرمان تعبس جزاء المونيا جليلا moo tax si Malick yàlla lu leen yàlla fayal. amiin yéen ñi ñu jox per gi. la la illa la la la.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 bàyyi sa turandoo sa ku bëgg a yéeg ci kaw da ngay jaar ci ascenseur ne ku bëgg a miin xadara yàlla escalier bi mooy tudd yàlla dikrul ilahi sullamun liraqi li xadrati lxay alaziz albaqi la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah ma tax si malik yàlla na leen yàlla fayal yéen ñi ñu indi tapis ruus bi ñu lalal ko te mooy sayiduna muhammad rasulullah alayhi salaam ngeen jox ñu kandi mi nga xam ne Cheikh na Tijaani ne ku ko jàng benn yoon mboolem aalam bi def tasbihaat ñetti yoon mu tollook loolu اللهم صل وسلم على عين رحمة ربك واليابة المتحققة الحائطة بمكر السوء ku ko dégg xam ne rabbi wuñ ko fi déedéet. هو المريد أقوال المتكلمة العالمي ساعد أقربائه وأمريكا لم إلا بملا إفرق الحائط جبتنا مكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها رؤوس الحقائق عين العارف الأقوام صراطك اللهم صل وسلم على طلعة الحق الحق الأبدان إفادتك منك إليك إحاطة النور المتسع صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها waaye ku nekk nga xam ne jox ko ndox yal nañ ci yàlla sax. amiin yaa rabbi ala marratun minha min annaari fidyatun wa mawtun ala al-islaam Only one that is successful is the one who purifies it. The loser is the one who lets it go in vain. These children, if we do not teach them that, we lose them. أتى وختم من الرحمن والجاي وي أتى وختم ختم سيدي بابك وي أتى وختم من الرحمن والجاي خلفه أو أسبع الوبل قل في آفاق منغمي رن لا أسبع الناس قرقه فيه جدوى حسبنا الناس غرقا في أرواح في جدوى وفي جدوى في جدوى في جدوى Fatima. the name of the founder, Sirin Sidi Ahmed Si, Al-Habib, we would like to welcome each and every one of you in this edition to be seated and listen to be inspired tonight. We are time constrained and it's going to be an event in which there's a lot to be done here tonight. And we have some wonderful speakers who are capable and talented in getting our spirits high to the level in which it hasn't been heard before. But on this, I would like to declare this convention open, which is the 15th edition. Please be seated and listen attentively to be inspired and be uplifted spiritually. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.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 اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم لجيبي دمنا بنيب na ba ñëpp ci atum 2012 ci state u Pennsylvania ci cité wu Philadelphia maire bi takkal ko ndomba tànk def ko citoyen d'honneur ne ko sëriñ Ahmed si sa liggéey ci dëkk bi boole na xol yi boole na jëmm yi muy jullit yi ak ñu dul jullit muy liggéey bi am solo xam ni mbir mi yaatu na waaye dañuy wax rek la waxoon daaw liggéey bi am na solo xol yi fees nanu waaye sëriñ ñi ndey ñoy sa njabot fo joxagn rek fofu la di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nak li Malick dafa am solo deful neen waxul neen du du sam bu keur dafa jot nak dafa jot ñu bàyyi wax ji tay jëf kep ko xamni am nga lo naqari lu nekk sa xol ci njabot gi ci walu éducation ak lu mu munti doon li defal tarixa bi nañu jóg te commencé jëf te bàyyi wax ji wax ji dafa bëri As a Muslim, you may attempt to enlighten people about Islam, but please do not, and I would repeat this, unless and until you do have the proper understanding and knowledge of what Islam is, its teachings, its rules and regulations, do not appoint yourself as a spokesperson for Islam for us to come back to the culture and tradition of Islam. Teach these children this deen and bring them towards this deen. If we do not show them the way, they will not be, not be led by somebody else. We need to lead them if we do not want somebody else to lead them. We need to be the driver in the vehicle before somebody else drive them to where we don't want them to be. If you run for you from your children because you're too busy making money. Remember one thing, you will spend most of your money paying for lawyers. You will spend most of your money bailing your children. You will spend a lot of money getting your children from rehabs. Believe it or not, I have known so many nowadays in the African community, children that are drug addicts children that are alcoholics. We don't want to talk about it. It is a shame, but it is a reality that we're facing. If we do not take care of it, it will come and bite us. jàngal nañ te naxuñ te yonent bi dara taxut yàlla indi ko ci mu nit ci jàngal ko mu xam kan huwa rasulan minhum wa yuzakkihim Cheikh Alhaaji Malick ba mu xamee ne jàng mooy tax civilisation am ci la jël léppam jox ko jàng ak jàngale bon bilaañ mi beneen ba mooy boo jàngee ba yàlla def ci li nga jàng nga am satisfaction te xam ne yàlla rek lañu war a gëm nga gëm yàlla am imaan xaalis te loolu mooy objectifu ab jullit mu nekk mu'min beneen ba mooy axlaax jikko yonentu sallallahu alayhi wa sallam innama bu'istu li utammima makarim al axlaax sama mag ji xaaj Idrissa ak xaaj Pape Hann yàgg nañoo gàmm di wax yonent bi yàlla tegewu ko lenn lu du jikko bon defar jikko yi moo indiwoon yonentu yàlla Muhammad ci kaw suuf bii sëñ Babacar xaaloo ñu ne ko loola xaaloo mu ne benn baytu Seydi Haaj Malick jabal huda summa bëwan wal baha adaban xamlun li xayri xalqillaahi mu ni boole nañ yi nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ ëmb Seydina Muhammad ñii ni juróom benn weer ñii ni juróom ñaari weer ñii ni juróom ñetti weer ñii ni weer ñii ni fukki weer moo doon ni boo boolee six plus sept plus huit plus neuf plus dix moo lay jox 40 40 yooyu mooy miim gi nga xam ne moom la Cheikh Sadi Xaaji maa ngi wax ne min baadi tain wa laamin summa sittata ashhurin raakam fi laaxi sobxe lam yanam yi kon loolu dugal nañu ci miimu Malick guddi gii nag guddi maamam la te yàlla mbubu guddi la sol yàlla lëndëm ngaa tax moo tax muy Seydina Muhammad yaa ayhul muzammilu xum ñiy jug guddi nag ñaari catégorie rek la kii dafa jóg pour baña wé baña bañ a ko yàlla ki dafa jóg pour contane gimi wax ak yàlla ki fanane xoolem lan la rawhul wisal la ki fananam lan la khawful firaq la yàlla ni tatajafa junubuhum an il madaajici yadduuna rabbahum xawfan ca xawful firaaq wa tamaan ci rawxul wisaal بذلي يمن بلا من وينفي المعاصي mooy Mansour ni huwa moom rasulillahi addawxatu mooy datt ga boo demee ci abdarama dawxa datt la ko firee mooy garab gu mag a mag a mag boo demee village nee na bàyyi diw ñu ni la ma nga pinc ma boo ñëwee ca pinc ma eh, jërëjëf imaam huwa daawatu usmaa boo demee ca village nee na bàyyi diw ñu ni la ma nga pinc ma da fa gis garab gu mag fa la mag ñay nosee di noccee fa la mag ñay féexloo nee na ëllëg yowmal xiyaam ñëppay tiit ku dekki da ngay tiit kenn rek dekk ànd ak sa góom mooy sa waaji rasulullah muy and ak mom rajo way tiit keroog bu ñëpp tiitee benn dengar am di nga dend ak nit yuuram di bax ndax tàngaay yowmal xiyaam mm. yow doonte sa yuur baxagul di nga tiit tàngaay ba di nga dend ak doomu aadama muy feeñ ca ñaqam ngay dégg yuur ngay bax waaye benn kere am ku njool màkka mayul nga yendu ci naaj bi góor gi ni huwa rasulullahi mooy daxtu gu magga garabu ndànjantaan la yusallu def na wute ker bi zillihi ci ker rasulullah ki yamunnu bilaa man nin day maye yamunnu day maye bilaa man nin ci dul ñaxtu jërëjëf wayan fil maasiya ستال المعاصي اي مو يالا هو المنتهى مجدا نين مو يمو كاي تي تدنغ مو رسول الله وفخرا مو يمو كاي تي بوكري وسودا مو يمو كاي تي تشند هو المرتجى يوما يشيب نواسيا مني حزب منصور هو مو رسول الله المرتجى موم لا نو ياكار يوما بس بغا خامني يشيب دني بيجاو an nawasiya càmbar ga xam nga càmbar ga mooy karaw bopp ku dekki da ngay tibb ba be la isee yàlla mayoon na ko boo deewee mu dekkal la hmm. boo deewee mu dekkal la moom isee mës na dekkal xale boo xam ne 18 ans la am mu fëgg ba mu karaw wax bu ne ko yow bi ngay be jaawoo di mu dama tiit damaa defe ne bisu pénc jot ñun ñëpp bu ñu dekkee dañuy tiit ba weex tàll kenn rek la alaji surni huwa moom rasulullahi al murtaja moom la yow ma bis ba nga xam ni yasibu dana bi jaaw an nawaasiya càmbarka ya mooy karaw bopp na waa kër rasulullahi laka mujizatun ajadar kullal wara yàlla ni sidina muhammad laka mujizatun ajadar kullal wara yonne maa la yónni ngay bigalaate laka mujizatun ajadar kullal wara yàlla ni rasulullahi sayyidil awwalin سيول يوسيكنا محمد سيدي لاقرين أعجز كل الورى ورفعنا لك ذكرك لك معجزات أعجز كل الورى يلا خول سجنا محمد لك معجزات أعجز كل الورى jazal kullal wara ca la ñu dem ci waawoon lañ laaj jàmbar ja Seex Seydil Haaji Maalik la ko mujisaatu jazal kullal wara yonne ñu laaj baayu Sëriñ Babacar Baay Alhaaji Muhammadul Habib la ko mujisaatu jazal kullal wara ñu laaj jàmbar ja Seex Seydil Haaji Maalik na ko ñëw naa ci turu fondation Xaadimu Rasul ànd ak sëriñ aadama Fall mi nga xam ne moo yor public relation fekk nañ fi soxna aji aaj wax nañ ma ne bokk na ci ñi doon taxawu xéewal yi dem ci yëfi ndaw kundaay yi ah dikk nañ fekk fi sëriñ Ousmane Ndiaye bu Baltimore fekk fi bokki taalib yépp su ma limee du ma matal waaye sëriñ bi noo ngi lay xamal ne dikk nañ di la sargal di la tatagal di la ci guddi gu tedd gi di ñaan nga wuy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila allahi wa sirajan munira kon siraj moyler waaye nuurul nabi sallallahu wa sallam nuurul huda la nuurul haadi moo tax mu ni ci nga xam ni seen maam ju tedd ju baax ji yewe yewenal ñu loolu mu ni nuurun atan nuural mubiina li irshadil ibaadi jamian gindi boobu moo dimbali ba mu saf ñu safo ko ci xol yi jàkkaarloo fii di demalante di jokkaloo ñetti fan cofeel gi di gën a jolli ci xol yi jóge ci ruux tase kàddu yi leer googu mu jël ko def ko ci kàddu yi def ko ci làmmiñ yi def ko ci xol yi déggoo fi benn wax joo xam ni wax bu safaanoo la lu dul di leen gën a yaakaarloo di gën a sonj ñuy gën a jàpp ndax soo seetee mu bashiran mooy lu ñu baril ci bégal waaye naziran xupp gi na ndànku xuppi gi danga koy def ndànk waaye mu bashiran nag dee leen bégal bu baax a baax bul day di dee leen bégal loolu sallallahu alayhi nañu yàlla wanele ci jàmm ci kaw dund ak talak sago ñu yàgg di ñëw di teewe lii di ko bokkandoo yàlla di gën a yokk gën ñoo yokk muccal musal ñu muccal suñu njaboot yàlla bu ñu jaar fu neexul seeni way jur suñ maamoor yàlla na yàlla gën a barkeel gën la yokku sutura ak taxawaay yi Hallelujah, عن بباب الجمال من حوى كل المعالي قدره ما زال ساق الهلال عجيب اليوم إلا أولئك مثلك وجهه بدر مدور zawya Mam Maodo bee ca Ndar zawya Mam biir Ndakaar zawya Tiwaawan ëmb leer bi mu tasiw ko aw ñoñam yéen a ngi seetaan